monsieur Alimana li ñoo ngi lay nuyu. Ah, naa leen. Mhm. Euh, ñuy fàttali ne yow yaay euh, rek euh, ki jiite étude ba nga xam ni def nga ko nga def ko ngir compte bu UNESCO jëmale ko nag ci sécurité des femmes journalistes fii ci réew bu Sénégal gannaaw étude bi tey jii lan nga ñu mën a wax ci boobe jàngat. Ah, li ma si jàngatee moo di jigéen ñi jigéen ñi liggéey ci jumtukaay yi buy rajo muy télévision muy. journal euh, nee nañu ne fukk boo jël. Mhm. am na juróom-benn ñu xam ne nee nañu am nañu dinañ leen bunt xatal soit mu nekk ku ñuy liggéeyal muy góor di leen sonal di leen cokaas euh, di leen leen doxaan ci façon doxaan ñu xam ne neexu leen. Mhm. soit mu nekk ci euh, téléphone bi ou bien ci internet bi. ou bien ci whatsapp bi mm-hmm. donc ñu jàpp loolu ne soo jëlee fukki jigéen ñuy liggéey ci eh, jumtukaay yi mm-hmm. juróom benn jëm juróom ñaar ci ñoom eh, am nañu expérience boobu d'accord loolu loolu moo gën moo fës ci jàngat bi. Eh, tamit ñoo gën a fës moo ci fës voilà. wax nañu ne ci ñoom ñu ngi joxe ay pourcentage wax nga ko sànq ne nga 69 pour cent la. Eh, hmm. ci eh, jigéenu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi subir lu nu mel fii ci Sénégal. également autre chose am na ñeneen ñi nga xam ni ñoom bëgguñu ku leen xamal te toll nañ ci juróom fukk ak juróom boo jëlee téeméer boo jël ñoom bu ñu sañoon daal la ñuy dund kenn du ko yëg loolee xam nga ko ci biir rédaction yi ndax dem nga fa interroger nga ñenn ci ay jigéen ba nga ko yëgee lan la la def loolu. waaw c'est ça euh, soixante quinze pour cent ci ñoom dañu ne su leen dalee parce que dañ leen laaj. Mhm. waaw loolu soo amee lan ngeen di def maanaam ndax di ngeen dem ci patron bi wax ko ko. Mhm. ou bien di ngeen ou bien sax su fekkee garaaw na di ngeen dem ci police bi ou bien ci magistrat yi bon am na cinq pour cent rek ñoo ñoo ne waaw ñoom loolu lañu def. ah dem ci kii bon mais lu toll ni cinquante pour cinquante cinq pour cent nee nañ ñoom daal bañ si wax dara moo gën ci ñoom parce que dañu gis ne si dañu xalaat ne suñu demee ci police day ay démarches yu dul jeex la te de toute façon du ñuy def dara ah et ou te sax dañu leen xamal maanaam daal li dal li leen dal dina siiw te bëgg ñu ko dañu bëgg am seen seen seen seen euh, sutura daal. Mhm. voilà yow ba nga defee jàngat bi ba pare lan nga ci euh, gis ci réew bu Sénégal ak journaliste jigéen ñi lan la ñuy daj ci seen biir rédaction ba nga defee jàngat bi. waaw man li ma si gis moo di ci ci biir rédaction bi am na comme partout daal jigéen góor ak jigéen su ñuy liggéey mhm. euh, góor ñi dañ mun a doxaan harcèlement mm-hmm. moo di façon doxaan la daal ba xam ne neexul nit ki ah alors loolu moo gën a am solo euh, maanaam jàngat bi daal loolu la moo di jigéen yu bari ci rédaction journaliste yu bari ñi ñuy liggéeyal góor ñi liggéeyal ak euh, jàmbur sax ñu xam ne à travers internet bi ou bien whatsapp bi te leen dañ eh, leen eh, eh, di harcelé daal mm-hmm. ah mm-hmm. te harcèlement ci harcèlement mun na am lu daf daf leen di daf leen di stressé daf leen di merloo daf leen di créer ay problème te sax mun na am sax ay répercussions am ay conséquences ci seen liggéey mm-hmm. voilà yow ndax yaakaar nga ni tey ji jigéen ñi euh, femme média yi yi nekk ci biir média elles sont assez sécurisées maanaam loi sénégalaise ñu ngi leen di aar ndax yaakaar nga ni kaaraange googu tey ji mat na euh, ci au niveau des rédactions euh, kaaraange kaaraange am na am na ay xam ne parce que ci ci kii bi am na ay xam ne day protéger jigéen ñi la loi contre les violences basées sur le genre nga mm-hmm. am na ci ci code pénal bi mais am des na par exemple harcèlement en tant que tel mhm. euh, euh, kii wuñu ko euh, désigné wuñu ko d'accord ah, donc des na te même même ci code bu bees bi mhm. waxuñu si dara code la presse bu bees bi waxuñu si dara mhm. donc laaj na ñu gën a aar jigéen yi journaliste jigéen yi ak loi yu bees yokk yokk ci loi yi loi am na daa mais ñu yokk yeneen loi yi di gën a euh, sécuriser mm-hmm. monsieur Alimana Bathily ñu gis na yaa def euh, étude boobu pour le compte de l'UNESCO lu tax nga jàpp ni UNESCO daal dafa gis ne tey ji dañoo war a def jàngat ci femmes journalistes yi nga xam ni ñu ngi leen di harceler euh, au niveau de leur rédaction pourquoi nga jàpp ni daal euh, organisme boobu dafa gis ni war nañu def étude bi pourquoi. xam nga UNESCO seen cër la. Mhm. UNESCO parce que UNESCO mooy ci ci Nations Unies. mooy organisation bi xam ne ñooy toppatoo euh, lépp jëm ci information ci communication ci aada ci ci euh, ci étude mm-hmm. ci xam-xam donc ci seen seen seen seen aada seen kii seen seen cër la deuxièmement dañuy gis ne euh, journalistes yi journalistes jigéen yi fu nekk ci àdduna dañuy jànkonteel Euh, lu mel noonu dañuy leen di bund xatal dañuy am difficulté ak góor ñi mhm. donc loolu du lu xam ne Sénégal rek la xew dina xew fu nekk ci àdduna te UNESCO seetlu na ko fu nekk ci àdduna mhm. ñu ne léegi euh, nañu jëmale ci Sénégal gën a xam la xew ah parce que li ñu li ñu li ñu bëgg moo di après mhm. toog ak euh, responsable yi toog ak journaliste yi seen bopp seet li ñu lan la ñu war a def pour gën a Euh, sécuriser euh, journaliste jigéen mhm. ñu wax ko sànq UNESCO démb ba tey ñu ngi ci Ndakaaru ngir def ay atelier euh, jëm ci wàllu sensibilisation tey jii lan nga yaakaar ni noppi nañ ko def nag ngir rek ñii di femmes yi nekk ci au niveau des médias ñu mën a am kaaraange gu mat sëkk. waaw loolu la ñuy commencé maanaam di toog ak nit ñi nit ñi maanaam journalistes yi mhm. dañuy réunion ak journalistes yi ak. Euh, aussi organisation journalistes yi mhm. syndicats yi euh, ak gouvernement bi ak magistrats yi ak policiers yi ak ñi xam ne ñëpp daal ñi nga xam ne mun nañu euh, tax ba kaaraange bi gën a mag mhm. kon dañu dañ leen di wax ñu lii lañu seetlu lan ngeen si xam lan lañu ñu war a def naka lañ koy defee voilà mhm. ba jëlaat euh, adopté ay ay mécanismes yu bees ay loi yu bees xëy na. Mhm. pour gën a sécuriser journaliste journaliste voilà donc wax nga ko sànq également nga def euh, jàngat bu am solo dem dëkk sa micro ay yenn ci ay femmes journalistes gannaaw ba nga defee jàngat bi yenn conclusion tey ji nga ci mën a tirer euh, monsieur Bathily. non conclusion bi bi gën a defe na première conclusion bi moo di jigéenu journaliste yi. Euh, Sénégal ci kii bu bu difficile la liggéey bu difficile la mhm. te euh, ay jàmbaar lañu am nañu kattan am na ñu mën-mën loolu tax war nañ leen jàppale war nañu gën a euh, dëgëral loi yi mhm. ak règlement bi ak defar ay yu bees pour gën a leen sécuriser sa liggéey mhm. parce que liggéey bu am solo la la ñuy def d'accord monsieur Alimana Bathily ñu ngi lay jaajëfal. jëfal mhm, ma fàttali ne eh, yow yaay ki nga xam ne yaa def jàngat boobu eh, pour le compte de l'UNESCO mu jëm ci wàllu eh, karange ci ñi di jigéen yi liggéey ci média sénégalais merci beaucoup. merci madame. Mhm.